chers amis internautes ñu ñoo leen ko waxoon sànq euh, Abdou Guité moom mooy nekk suñu invité tey waxoon nañ leen ko Abdou Guité Seck nag qu'on voit presque jamais mais qu'on l'entend sur la bande FM qu'on voit sur la télévision mu ngi toog ci rukum bokk ci artistes yi nga xamante ne ni euh, gëm nañ ñi à travers ñoom ci seen i way ñu ngi ñu ngi war nañ mën a développer Sénégal donc yemul ci loolu rek waaye bu door en door way bi euh, mu ngi bay waaram Euh, di investir boo demee foofu nga xamante ne foofu la dëkk mooy Saint-Louis euh, ba Waalo mu ngi bay ay hectares hectares yi nga xamante ne nii donc di entreprendre ak ay jeunes ci ak yeneen ak yeneen rek doo ko gis ci lenn mooy nit koo xamante ne ñu fonk ko trop parce que nit la koo xamante ne aussi euh, nit ku gëm boppam la nit la koo xam ne doo ko gis ci ci ci lu nekk foo ko gis rek yaa ngi ko gis ci lu am ful la ci am fayda donc loolu mu nekk loo xamante ne nii donc exemplaire la ci moroomu artiste am yi soo ay woyam danga nga xam da ngay yaakaar ne sax benn oustaz mooy wax wala soit benn benn benn savant mooy wax effectivement donc lépp lu mu lay wax téere la tey moom la ñuy jàkkaarloo fas yéene waxtaan ak moom ñu am ci mbégte bu baax a baax baax baax di ko dalal ci émission édition spéciale euh, Kéba la ci caméra bi à la présentation Souleymane Ba Abdou maa ngi lay ziar di la dalal biir édition spéciale. merci Souleymane maa ngi maa ngi lay gërëm. Mhm. ci dalal bi. Mhm. di nuyu mbooleem àdduna. Mhm. ñu émission. wax TV wax internet. xam ni yaa ngi fépp ci dëgg la moo tax euh, dara oyofatul. dëgg la tamit alhamdulilah lépp oyof. parce ok donc maa ngi leen di ziar. Mhm. Euh, di euh, yow nag bon yaa ngi ci juddu ci famille boo xam ne famille de griot la yàgg nga ko wax. bon laata loolu aussi ñu ràññee la ci musique particulièrement man en 2004. Euh, nga xam ne ci laa la gën a découvrir mais laata 2004 bëgg naa ñu ñëw tuuti ci euh, fi nga xam ne fa nga jaar ci groupe book bi nga xamante ne fa nga jaar euh, doog génn doog a def en solo waaw soo ñuy résumé ci loolu lan ngay lan ngay wax ci loolu. waaw dëgg la avant groupe nag am na lu ko jiitu woon. Mhm. mooy mbappat mi rek. ok voilà donc ci ASC bi la ñu tàmbalee. ok bi ci biir kër gi bi ci koñ bi. ok yàlla def avec l'ODCAV aussi. Mhm. de Saint-Louis. ñu mhm. ràññee woon ci wàllu. Euh, théâtre bi mhm. association sportive et culturelle u quartier bi ak mooy mhm. bi mhm. ah, ñu fa doon def suñu mu nit gars yi di apprécier yàlla di def ñu dem ba Saint-Louis am matériel de musique ci jamonoy Abdou Diouf ndeysaan ma doonoon tout le temps loolu woon mënoon naa ni mën naa ni ci juróom benn at juróom benn at waaw voilà mais alhamdulilah quand ñu ràññee woon ci suma biddéew ba tabboon ma ci euh, ma nekkoon euh, le leader vocale okay. qui est au sein de l'orchestre régional de Saint-Louis d'abord. Okay. Et avec cet orchestre, mhm. ñuy joué di joué fee ba mhm. benn jour ñuy joué à la place Faidherbe mhm. dajanteel des occidentaux yu jóge euh, pour mettre euh, en place benn symbiose culturelle entre la langue wolof okay. et la musique rock donc euh, quand on musique rock ci jamono jooju Euh, Peter Gabriel ràññe woon nañ ko ci bu baax a baax mm-hmm. euh, ci musique pop british mm-hmm. Sting mm-hmm. Euh, doon na ci ki nga xam ni kàngam la et je pense que ba tey kenn weddiwu ko kenn weddiwu ko ñooñu ah, YouTube ah, ñooñu ñëpp doonoon nañu ñu nu doon influence ci njëlbeen ci wàllu musicalité waaye nag tout le temps rek dañuy imposer sunu cosaan sunu aada sunu gis-gis sunuy mbaax sunuy taaru réew à travers notre langue muy la langue wolof mais à travers aussi ci lépp rek fu mu dem rek on est des ambassadeurs de notre Euh, pays mhm. donc loolu nag laa àndee groupe Wok ba yàlla def ànd boobu jeex mhm. en 2000 mu mhm. hmm, fekkoon nag ñu dawal ci lu bari jaar nañ ci fu bari am nañ ci raaya am na ci euh, signature ci maison de disque yi gën yi mag ci àdduna bi ah, jaar BMG jaar Sony et ainsi de suite après nag en ma dellu si nag pour apporter sama touche ci paysage musical au Sénégal et boobu ba tey maa ngi ci bay suma waar et je compte à mon plus de douze albums ok euh, Abdou Guité tey suñu lay euh, wax Abdou Guité ku wax Abdou Guité wax Ndar mm-hmm. euh, dakaar doo ko gis soo ko gisee yaa ngi ko gis ci ci ci ci ci ci ci ay ci ay ci télé wala ci rajo wala ci émission plateau yi Abdou Guité diggante ma ak waa Ndar lan moo ko liyee. waaw man nag je ah, laa juddoo. Mm-hmm. su su mm-hmm. may papa su may Euh, mënuñu wax ab ndar sans Abdou Guité mënuñu wax Abdou Guité sans ndar te ba tey alhamdulilah dañu conserver loolu mhm. parce que ndar gëm naa ni bokk na mhm. ci dëkk yi daq waxuma ci Sénégal mais ci àdduna bi mhm. de par sa situation géographique waaye tamit culturellement euh, ndar doon na lu riche ci wàllu culture euh, ci wàllu diine ci wàllu aada ak am na tranquillité am na plaisir de vivre et je pense que nag fi nga xam ni Euh, li nga xam ni c'est une perle bu nit ñi daw jëm fa mhm. bu la yàlla boolee foofu mhm. euh, da nga koy euh, da nga koy sàmm aaki mhm. moo ko toog fa bu baax a baax je pense que loolu rek amour boobu moo nu bàyyi Saint-Louis à chaque fois le besoin euh, où le se présente pour la carrière mhm. pour la culture pour la musique mhm. dañuy bàyyi lépp mhm. daw defi loolu loolu moo tax tey guddi yi euh, nga gis nu biir Ndakaaru Ndiaye parce que dafa am lu tax ñu ñëw ok ok am lu tax ñu ñëw biir Ndakaaru Ndiaye mais aussi euh, bu ñuy wax Abdou Guité Ndar lañ koy wax comme ni nga ko waxee sànq nga def fa benn carrière bu extraordinaire Ndar dañuy am faral di dégg ne ku dëkk Ndar rek da ngay da nga dafa am diine Euh, comme ni nga ko waxee sànq mag ñi dañ lay yar mag ñi macha allah te loolu dafay refléter ba ci Abdou Abdou Abdou Guité Seck ci à travers ci ay woyam ni muy waxee ni muy woyee mu nooy lool donc demoon na sax ba impacté ci ci ci ci sa début carrière en 2004 góoru ndar-ndar coow loolu tuuti tuuti est-ce que mun nañ ci revenir tuuti. Mm-hmm. Abdou Guité yar gu ëpp la woon wala éducation ndar wala wala wala wala noonu la Abdou Guité mel naturellement. naturellement je pense que yar Eh, je pense que yar moom lu ci waay nit mën a am rek. Mhm. muy euh, yoon wu taaru. Mhm. yoon wu nit ñi di apprécier je mhm. pense que lu ci waay mën a am rek doyut. e ñun aussi euh, dañu doon tey ambassadeur. ok te ambassadeur je pense que ci beneen na ñu doon géwal. géwal nag bu mu xamee étymologie moo géwal. da ngay daal di xam sa bopp. dëgg la dellu santaat yàlla. kontaan. lool ci xeet wi la ci xeet wi la yàlla dogal. ndaxte démb ba tey. flambeau bi mu yore. ngir continuer di dundal aada cosaan. maanaam préserver le patrimoine culturel. le patrimoine immatériel. de notre euh, nation. donc kon géwal je pense que kenn amu payam. bu yàlla defee nag nga nekk doon bokk ci askan woowu. Mm-hmm. yàlla def nga bokk ci dëkk bu mel ne Ndar. nga xam ni tey suñuy wax sur le plan religieux mhm. mënoo ko jéggi mhm. mag ñu baax ñu ne mhm. jaar nañu ndar bu fekkee ñëpp jaarunu ndar je pense que quatre-vingt-quinze pour cent yëpp ndar euh, la ñu defee formation wala wala cent pour cent yëpp sax pourquoi pas oui en tout cas mën nañ ni cent pour parce que na ma ko waxoon ci woy wi dama ni ndar moo meññ Sénégal kon teraanga yaay borom dëgg la la suuxat wareef la def. ku la sargal wareef la def. dëgg la et je pense que tey amul mag yu mag bu baax booy tudd Sénégal. Mm. Euh, te jaarul ndax am fa benn expérience bu extraordinaire. dëgg la en plus. Mm-hmm. position géographique Saint-Louis. Mm-hmm. tey boo xoolee. Mm-hmm. mooy buntu continent bi. dëgg la ci ngay duggee pour nag mën a jàll fu nekk euh, euh, ci ci ci Afrique. dëgg la kon. Euh, éducation beeg la civilisation occidentale mhm. l'islam et cetera tout tout tout mhm. dafa jaaree ndax kon daal mhm. alhamdulilah ok euh, alhamdulilah dégg ngeen ko noonu mais Abdou tey boo ñuy nettali benn histoire boo xam ne da ko dund ndar euh, mu marqué la trop lan lay doon ci sa ngone moo xam ci sa carrière musicale moo xam ci ci ci ci familiale bi donc lan lan nga ñuy wax si enfance enfance à Ndar ah. <laughs> waaw ba tey damay romb ay euh, soxna yi nga xam ni. waaw ah, samay euh, mag la ñu doon àndal. waaw ah, bu ko defee ma mm-hmm. man leen yow fayagoo ma suma xaalis ba tey. Mm-hmm. parce que <laughs> ma nekkee xale la. suñu kër dafa amoon gerte tubaab bu mag a mag a mag. ok daan wàcc école wala mm-hmm. wàcc alxuraan. ok ah damay daal di dagg lu bare et je vais me faire plein les poches. si si su ma génnee gars yi bi. gerte tubaab bi dafa neex jaay ma ma waaw et je me faisais quand sama porte-monnaie. dëgg la et loolu ça me rappelle quand même moment bu extraordinaire. bu ko defee sama papa nag. da doon xëccoog man moom ku hmm. laal garab gi lay lay lay bañ doo yéeg ci kaw garab gi parce que ragal na nga daanu laneen la ciy calculer dëgg la moom li mu bëgg rek dëgg la sant yàlla ba am dëgg la dëgg am na solo fàttaliku dafa neex euh, boo xam ne nag aussi c'est contraire boo xam ne nii euh, soit yow yaa ko yaa ko yaa ko yaa dund mm-hmm. waaw mu naqari la trop euh, ma du ñàkk waaw émission moo tax ma ma ma ma ko wax wala du hmm. du du ñi seetaan mais dëgg la man euh, je garde hmm. lu bare dama koy fàtte fii mu nekk nii mënoon nañu seq lu doy waar sax hmm. mais après un an après su ma la gisee man damay damay fàtte kii lan moo ma mosoon a jotanteeg ah moom et je ma sens gêné ci à ce que may am interférence ak doomu aadama parce que je crois beaucoup à une chose la loi d'attraction C'est très important. Voilà. Mm -hmm. euh, le positif mm -hmm. attire le positif mm -hmm. et le négatif attire, attire le, le négatif. Vrai. Même des fois, quand on tra traverse de, de mauvaises ondes mhm. et que nous avons des interférences et tout, mhm. bu mu tax mm-hmm. nga camper sur cette position mm-hmm. parce que y tellement de positif dans ce monde mm-hmm. te lépp lu gis rek am na lu ko sabab am na fu mu jaar ba si am na et cetera et cetera am na lu tax mu ñëw et peut-être dafa war a tamit agir ci sa côté positif su fekkee yow canaliser nga ko vers cette direction moo tax j'ai très peu très de mauvais souvenirs samay digganteeg nit samay dig non non non non en jeune dama naan mais man a ma non c'est pas possible. waaw ah et pourtant Dieu sait que oh, il y a eu des euh, expériences. du ñàkk du ñàkk boo xam ne ci benn hmm. avec un ami marocain. Hmm. El Azri Abdallah. ok j'étais moom quand même. Euh, il était venu j'étais très enthousiaste ami ak moom ñuy mm-hmm. dem sama papa hébergé ko ci kër geek yooyu mm-hmm. Mm-hmm. mais quand il partait c'était vraiment avec beaucoup de euh, que dafa ma accusé woon wow. ma sàccoon photo alors que lu mu ma boobu laa ko boobu boobu nga ko meree woon quoi waaw mu daal di ñëw génne photo yi commencé xotti xotti xotti daal wane benn bi nga xam ne euh, en tant que euh, ci photo bi ñu sàcc rek kenn jël sa photo yi waaw oui affaire da ngone ok ok euh, mais xam nga rek xale des fois day nekk ak nit bëgg que dëgg la dëgg la ngeen di dem léegi dikk mais benn jour bi mu bëggee dem daal mhm. noonu la demee. et loolu ça m'a c'est un détail <laughs> mais ok xam naa internautes yi yàqamti nañu <laughs> ñëw ci actualité yi donc yaa ngi waajal lu am solo mais démb dafa am solo. parce que man suma ma découvrir euh, man man du ma ko nëbb ah je le cache pas Abdou mooy suma woykat depuis temps gone dama daan woyantu ay woyam di fecc manière yi di def lu nekk ñu naan ma yow Guité nga rek Guité nga Guité nga yow da nga waroon dem Saint-Louis sax. yaa ngi dégg donc euh, dafa am affaire bi nga xam ne da nga koy ci ci woy mooy inspiration suy inspiré lan moo koy inspiré parce que dañu seetlu euh, de 2004 wàcc te jëm 2000 euh, sa morceau yi ci def da nga ci def ay wayu bind bu extraordinaire ci wax yi ci paroles yi ñu ràññee ci benn morso bi nga xam ne def nga ko mooy wareefu doomu aadama wareefu wareef ak yelleefu doomu aadama war na wéy ci ci bépp diwaan doomi aadama donc woy woowu euh, da ko woy mu nekk lu extraordinaire ba tey soo koy jàngat jusqu'à présent da gis réalité yi parce que lan bind boobu te instant boobu nga gën a nekk gone inspiration bi fan la parce que bëgg naa am mu yegg ah wareefu doomu aadama. wareef ak yelleef ak doomu aadama. doon na way diwaan doomi aadama waaw. xam te ah, te xam moo tax moytu ci dëgg la. xel mi moo war jiitu ci li mu doon nga doog a sóobu waaw. nit ku baax da nga war a sàlloo doon agiteel mhm. tey te xam nga mën a moytoo li lay gaañ xoolal loolu après ñu ñëw ci bul tel teli bul tel waaw damay bañ nga suuf waaw bul dem dem ba sësle mhm. damay bañ nga sarale nga sarale rembatle mooy indi tuurule kon tey leen loolu mhm. maa ko bind mais bindu ma ko euh, parce que quand même euh, yi ci bare ci biir yi ci biir su way Euh, boo koy saytu da naan non soqeekoowul ci xale. ci xale exactement. mais loolu moo lay wan ni. Mm-hmm. y a une force. Mm-hmm. bi nga xam ni weesu na ñun. Mm-hmm. sunu gis-gis ak sunu dégg-dégg. moo tax bu nit di cëppi cëppi mbaa lu mu mën a def rek. yow maandu ca rek. dëgg la maa nga rafetal reste positif. ok parce que la ca ginnaaw même yow mi koy porté sax. di nga ko dese xam. man je pense sunu borom. moo ma bindloo moo ma wayloo. mooy dugal ci man envie bi nga xam ni ma ñëw bëgg ko partager. mais bu loolu weesoo sax da ngay gis je me retire parce que j'ai d'autres envies. être à côté de la famille. ou être dans les champs ou être ailleurs. et je vis ça avec très grand plaisir. donc des fois mu yebal ma nag su may gite club. Ah, bu ko defee à longueur de journée. je fais porte à porte de samay soppe ñuy toog di waxtaan nekk mm-hmm. en communion mm-hmm. voilà donc kon ñun dañ fi jaar rek mm-hmm. on est un élément du moteur suñu mission rek la ñuy accomplir ci ni ko yàlla namme ci ñun waaw moo tax léeg-léeg sax ñu ni ma yow dañ la gëj a gis wala dàqoo. waaw waaw waaw parce que c' est normal. Mhm. yàlla daf nu boole ay nit yi nga xam peut-être ils ont envie. Mhm. d' avoir beaucoup plus que ce que ce leur euh, offre. Mhm. mais yàlla ni mu ko bëggee rek ni mu ko tuddee suñu biddéew. noonu lay tëddee. ok question le meilleur reste ok le meilleur reste à question boobu bëggoon naa ko laaj tuuti parce que. Abdou Guité sénégalais yëpp ko bëgg ah jigéen ñi ñëpp ko bëgg te mag ñi xale ñëpp d'accord ni xale bu mën a way la car macha allah du sumay wax euh, lu ñëpp xam la donc euh, loolu moom it xam naa ni du ñàkk xam na ko bu toogee di déglu boppam dina xam ne carrément macha allah eh, wala buy rencontré rek euh, fan si wala ñenn ak affaire yooyu noonu du ñàkk dina ko dégg mais tey soo taxawee dégg wala nga nga dem fenn par exemple toog di dégg Abdou Guité dafa mën a way succès boobu lan la lay def. une très grande question mais on ah. va simplifier la chose <laughs> hein, pour euh, bañ a dugg ci euh, des termes kiiwag mm. yooyu ah. mais mm. gën na xóot tontu bi mm. euh, tontu bi mooy ça me fait beaucoup plaisir ça me fait plaisir ok ah, et daf may gën a delloo tamit gën a gëm sa bopp mm-hmm. gën a xam ni am nañu la sopp am ñu la bëgg mm-hmm. am nañuy taaxirlu mm-hmm. say kàllaama ak say way donc raison pour laquelle tout temps incha allah dès que l'opportunité se présente mhm. dinaa ñëw indil leen li ma yàlla wax mhm. li ma yàlla dénk li ma yàlla roof mhm. ngir ñu bokk bànneex bi bokk njëriñ ah dégg ngeen loolu muy nekk kàddu yu am importance yu am solo Abdou Guité Seck saay su génnee soo ko da xamoon 2002 bu génnee dafay mel ni même Abdou Guité ngay gis ci paroles yi amul dara lu ci changé ci mbind mi ci ci ci xam-xam bi ci woy wi nga xamante ne mu koy def tey soo doon jugé Euh, actuellement ak nouvelle génération bi nga xam ne ñu ngi fii di woy musique style de musicalité bi nga buzz bi nga xamante ne jël nañ ko tey soo doon def sa jugement par rapport ak li fi nekk ci Sénégal tey ku bëgg culture nga ku ne ab Guité xam ne nit kuy dundal culture la nit ku fonk culture la parce que da ci juddu yaru ci màgg ci tey euh, euh, sooy def jugement loolu lan ngay def par rapport ak ak loolu. Mmh. Mmh. que sumay nawle lañu. Mmh. donte bu ma leen jiitoo tamit ci mbir mi <laughs> waaye comme ni ma ko waxee woon léegi rek je suis un élément du moteur <laughs> am na te moteur bi dafa bëri ay pièces <laughs> pièce bu ci nekk nag def ci am solo donc mm-hmm. nit dana féete boor bi nga xam ni mm-hmm. kenn mën na ko oyofal mm-hmm. mën na ni kii waxi dof lay wax wala ñàkk fayda waaye kooku moteur bi daf ko soxla pour daw pour daw c'est vrai donc lépp lu ñu mën a aider pour ñuy dundal suñu culture di tamit préserver suñu patrimoine immatériel mhm. je pense que lu am solo mhm. lu nu war a taaral la mhm. lu nu war a ndamoo la en tout cas man damay encourager bépp gone bu ma féete ndaw ni fi ngeen jàpp foofu la il faut persévérer lépp loo leen di def ak ni ngeen koy defee na fekk ngeen gëm ko parce que nul ne peut exercer un métier sans avoir la vocation kon bu gëm-gëm jiitoo rek li ci des yëpp mën nu réajuster entre nous pour le, le plus est-ce que Abdou am na arti am na am na am na xarit ci artistes yi nga xamante ne soit ñu bokk génération wala soit ñu bañ a bokk génération fii ci Sénégal actuellement da ngay toog ba ci yàgg jël sa téléphone woo ne allo diw saba ça koo xam ne artiste la ci Sénégal. bien sûr comme euh, bi may ñëw nii dama ànd ak suma doomu ndey Ousmane Ka c'est un grand batteur. ok. Euh, que je pense que tey Sénégal yëpp war nañ ko ñu ko donte mm-hmm. euh, peut-être ñëwul taxaw devant mm-hmm. euh, ci parce que il est derrière sa batterie mais musique yi nga fiy dégg yëpp mm-hmm. vraiment joué na ci benn rôle bu extraordinaire donc tamit am ay expérience Pape Dembel Diop super waaw super jamono. bokki dem laa ànd ak Ousmane Ka. Mhm. dem këram ndeysaan bernde yi. Mhm. Ah, affaire yi neex lool mu mhm. mel ne ni. Ah, ñu bokkoon ndey bàyyi ñoo gëj a gise pendant dix ans. mais grand boobu yàgg ngeen ah. oui Pape Dembel depuis euh, coono àdduna je ah pense. waaw parce que am na lu bare lu ñu jàng ci peggam. Mhm. Ah, et on n'arrête pas d'apprendre avec lui. ku yéwoon la yéwoone xam-xamam. Mhm. disponible aussi. Mhm. Ah, ci loo ko woo. sans condition dana day ñëw oyof la la ko ba mu baax. donc kon vraiment euh, ñun amal nañ leen njukkal te def na nu lu bare nag ci musique gu Sénégal. ndax tey képp ku déglu Omar Pène. ah di nga xam ni kat ah. macha allah macha allah mais bari nañ ci ku lim juum mais Jimi Mbaye suma ma suma suma mag la suma xarit la mm-hmm. ah, donc kooku c'est l'ancienne génération mm-hmm. euh, mais ñoom ñoo ñu jiitu di mm-hmm. suñuy ay points de repère di suñuy référence xale yi tamit kazalika Pape Diouf bërki démb ñoo nekk na woon chez Adja Ombeliko ah Adjouza aussi Viviane dugg si ah, ñu mel ne kii bi euh, euh, Adjouza bi mu dugg si bi mu njëkkee dugg si ndax ma fekk may may may xéewlu mu ñëw na yow yow lekk lekk man ko dimbale waaw xaar ma xool fooy mujjee moom nga moom nga bàyyi affaire yi muy tóor. donc kon pour te dire. waaw ah oui euh, quand même yàlla ñu boole ci sphère musicale. ok mhm. donc quoi mhm. par la force des choses. Mhm. nous sommes une famille. donc kon euh, sàmm loolu rek moo ñu war. Wally Seck gis ngeen yi muy am ci sunu album bu génn. effectivement générosité. donc euh, famille la ñu dal. waaw donc te ñun ñëpp on est de passage. ah de passage. et bientôt on ne parlera plus de nous hein. que ça mm-hmm. soit monsieur tel ou parce que tey boo xoolee Ndiaga mbay mm-hmm. ak li mu def ci musique ak la mu way. Mm-hmm. kenn way fi genn wàll. dëgg la fa mu xaacoo. kàddu bu mu wax. waxtaanam bu ne téere la woon. waaw ah waay Ndiaga dem te tey peut-être xale yi boo leen laajee. xam ngeen Ndiaga mbay ñoo ne la xamuñu ko. ñun la xamuñu ko. donc kon ñun wareef la pour ñuy préserver mooy moo tax tout le temps may wax waxu patrimoine mm-hmm. maanaam jottali xale yi li xale yi li fi ma waaye dëgg la waaw jéem ci yee seen xel ñu mën a préserver seen seen euh, comment dirais-je mm-hmm. euh, seen am mm-hmm. xam ni ñoo ngeeg ñun te def nañ ci ñun lu dootul fay ainsi de suite bari na bari na waaw waay donc parlon l'actualité géju nañ la gis à part euh, sa album bi nga xamante ne nii togoon nga presque un an deux ans si je ne me trompe pas. waaye doog nga nga nga <laughs> nga ñëw mais bi nga ñëwee aussi mu mel ni. musoo musoo musoo raar. ah donc ñëw ak ay album yu bu extraordinaire def clip boo xamante ni aussi tamit ñu gis ni sa côté vidéo yi ci digital bi mu ngi am benn qualité d'image bu extraordinaire ci ci image bi xam nga donc vidéo bi di njukkal aussi di saluer aussi ñi nga xam ne ñoo lay réaliser sa vidéo parce que quand euh, image bi am na solo video bi jaar na yoon et qualité bi aussi tamit am na solo bon 4K la image yu extraordinaire euh, donc tey suñ doon wax ci album bi euh, temps bi nga ko defar ah euh, waaw. Mhm. waaw di leen di di di gën a fësal di leen remercier aussi ñi ma mhm. liggéeyal yëpp ci wàllu vidéo yi. ok Papis Niang moom moo def vidéo bi génn tey bi ok ah di mhm. euh, euh, Ousmane Noël Dieng. Ousmane Noël ci Noël. Ah, am li nga xam ni binde nañ ko ko. donc may yabal internet yëpp ñu dem. seetaan vidéo bu bees bi. ok ci sunu YouTube. ay ah, bu nu bindee Abdou Guité Seck Abdou Guité titre. Ousmane Noël Ousmane Noël Dieng ok rek daanu dajante suñu bépp vidéo ñu mën ko safoo euh, ku mel ne Leuz aussi mhm. donc ce sont des gens généreux mhm. ñi nga xam ne ci wàllu vidéo aussi ni ma waxee léegi Pape Dembel ci wàllu musique mhm. noonu lay waxee ak ñoom ci wàllu vidéo euh, Baro maa ngi ci liggéey ak waa HLAP nekk ba Kër Massar donc di des ñuy euh, ay jeunes très dévoués donc ainsi de suite c'est comme ça on partage la chose bu ñu defaree ba mu baax rek jox Sénégalais yi voilà donc kon Euh, pour revenir ci sunu waxtaan album bu mujj bi génn mhm. mooy coup d'état mhm. moom mooy sunu album bi mujj génn ok mu ciy remercier nag bu baax mhm. Bougane Dany ak soxnaam Moumi franchement ils n'ont ménagé aucun effort pour la communication de cet album vous mhm. aviez euh, vous avez vu euh, yi nekk euh, woon biir Dakar. waay bu nekkoon nag ci benn lancée bu extraordinaire. Mhm. moo ne jëmoon grand théâtre pour satisfaire les fans. Mhm. pour répondre au grand rendez-vous. mooy concept bi nga xam ne moom la ñu defoon à Sorano. depuis 2013 moom la ñu waroon renouveler. au grand théâtre malheureusement mbas mi ñëw. am nu mu defee ñun mu metti lool nag. mais nag on va rebondir. ça va être meilleur. voilà donc coup d'état génn. am onze titres ci sunu jamonoy tey boo génnee album de onze titres dafay fekk euh, euh, musique nekk ci sa xol et puis bi tax laa jóg dëgg la mais c'est pas peut-être pour le le côté pécuniaire rek ok voilà donc euh, ràññee nañ ci yow la bëgg bi mhm. hmm? yow laa bëgg bi donc plus de trois millions de vues de ci ci YouTube bi YouTube bi c'est pas néant non non c'est beaucoup de choses c'est ah grand chose ah vraiment ñu am ci mbégte kontaan ci mhm. lool lool mhm. ñoo ngi réaliser yeneen vidéo te gis ngeen bi album bi génnee mhm. su may mag ñëpp retrouvé wu autour de ça bu mhm. mel ni sama tata Awa mhm. nga xam ne jour boobu ndeysaan ñu way ko ci way wu rëy waaye tamit ñu way gar mi ndaxte ki wax albumum rek ah deux millions la ko jëndee teg ci taabal ji hmm? wallaay lazim ah deux millions la jënde benn CD ah ñu ñëw di ko ko may parce que ba ñuy dem ci production bi daf nu dooleel jox nu lu bare mais bi ñu paree production bi daal ni ah mais la jàppale nag ba nga produire ba noppi. xanaa nga wax mën a dem may nag bu doon donte sax benn CD wala ñaari CD. waaw ah, waay ñu ñëw mu ni àll mic. damay jënd dama koy jënd du ma ko euh, kenn du ma ko may dama koy jënd. ah macha allah jënd ko ah, ci ki contribuer pour à ce ñu ñu toujours produire. Mm-hmm. ah su ma mag Malick Gakou dem jënd aussi album un million mm-hmm. Mm-hmm. Ah, donc euh, ak sama yeneen i xarit yi nga xam ne vraiment. ki ma woo léegi mu naan ma. mbaa amuloo programme tey. parce que xam naa ne bu ma ñëwee xeetu bernde ma nga ma nga may xaar. ma ngi lay xaar muy may mun a ma bokk ak moom euh, Saint-Louis. ok Sow ok euh, ma bu baax ak suma mbokk yëpp yi vraiment mhm. jënd nañu album bi mhm. à un prix extraordinaire mhm. et ça nous permet de partir encore ci beneen album. mais tey joyeux Noël la ñu génne. ok Ousmane Noël. ci wàllu production. wax production yu xam ne dafa cher euh, temps bi ngay jël di bind way rek. donc loolu temps bu bari la. effectivement et puis euh, temps boobu yëpp fi ngay toog li koy bindee mais Abdou buy liggéey album moom na koy liggéey liggéey est-ce que Dakar lay ñëw parce que dañu gis que bind mi dana dana jaar yoon tranquillité bi mu mën a am pour mën a liggéey album bi. Mhm. waaw xam nga c'est euh, bind bu ne dafa am lu mu laaj environnement bu nekk dafa am lu mu lay inspiré moo tax suñuy way boo Euh, sentir que am na benn côté assez coloré ah am des refrains am des couplets et cetera ak yeneen yeneen bu ci nekk ak fan koy bindee ak la lay donc mun na na bañ a bokk béréb ba nga koy bindee donc Saint-Louis je pense que euh, source d'inspiration la déjà parce que tranquillité bi nekk Ndar taar gi nekk Saint-Louis espace bi nekk Saint-Louis le fleuve la mer ah la famille la franchement euh, loolu dafa am lu bari li nga xam ni da da la koy influencer ci say biir way moo tax et ça ça ça nous permet de quand même de marquer une différence donc euh, macha allah nous nous nous nous sentons bien dans notre environnement pour euh, s'inspirer et écrire. wax nga ko sànq liggéey seen album bi nga xamante ne moom ngeen génnee muy doon waajal grand théâtre mbas mi ñëw. Mhm. donc loolu euh, euh, naka ngeen ko dundee artistiquement te xam ne production dafa cher artiste bi ku ne xam na ni li koy dundal mooy euh, muy muy jouer ay spectacle donc lu toll di Grand Théâtre ak sa tour fi mu toll déjà nga annoncé woon ko fan si ñëpp di ko waajal mu annulé à cause mbas bi. Mhm. donc loolu nan nan nan nga ko dundee ak noo ko jàngatee. ça a fait un trou énorme quand même hein, sur euh, l'aspect financier à ah, ça nous a euh, <laughs> anéanti <laughs> pour pour taper pour fort franchement ça nous a beaucoup euh, causé de tort mais quand même euh, c'est pas la fin du monde. Ah, lu yàlla dafa gën je pense que tey mu yàqal nu moo gënoon réew mi yàqu am déet donc kon ñu yàqule moo gën ñu yàqu ah donc kon dañuy sant yàlla di ñaan mu romb hmm, ñu jëlaat geetaruwaat rek daal di nag daje delloo mbuum ca mbooy mboy ok yow euh, ku wax euh, artiste da ngay wax euh, xam ne ñoom ay éducateur lañu ay messager lañu donc tey Abdou Guité Seck artistique waa ak fi Sénégal toll ci jafe-jafe yi nga xam ne am na ko euh, ak Covid bi impacté bi mu def euh, ma la moom sax mais tey soo doon lancé message ci askan wi ci say fans lan nga leen di wax. Euh, mooy suma waxtaan tous les jours rek je pense que il est important qu'on s'accroche waaw parce que abandonné moom bokkul ci bokkul ci. Euh, ci ku bëgg yegg ca teeru wa maanaam ku bëgg yegg vraiment fan lay teertoo euh, teel a bàyyi bokk warul bokk ci say attitude non non non non man je pense que dañuy mélanger rek sunu sunu sunu sunu sunu yoon ah jéem a xoolaat saisiraat la balle au bord rebond organiser wu waat rationaliser parce que tamit Euh, képp ku fi mënoon fukk ak ñaar tey peut-être juróom-ñett nga mën parce que wala juróom-benn parce que affaire bi doy na waar et xëy na nag bu fi yamee ah ñu mën a nag rebondir mais bu continuer tamit du baax ci kenn ah parce que vraiment euh, ñi laal suuf bari na hmm? ñi laal suuf bari na te bu continuer moom euh, réew mi ci ndërmeelu la jëm donc yàlla nu yàlla gaaw teggil nattu yi ah donc fi ci toll ci Sénégal bu mu ko weesu et ñu dem mais dañuy sant yàlla tamit parce ñun africain am na lu yàlla defal par rapport ak mbas mi parce que Afrique moo daan jiitu ci lépp li nga xam ni malheur la woon ci àdduna bi mais bii gis nga ni vraiment euh, Dieu merci Dieu merci. ok dégg ngeen ko noonu. Dieu mhm. merci mhm. ci message de fort bi nga xamante ne nii le grand euh, le grand Abdou Guité Seck joxe na ko muy lu am solo tey euh, xale yaa ngi jël gaal di ko ci mbënn bi gis nga li fi xewoon fan yii temps mhm. yi. mooy image yu daw yaram en tant qu'artiste tey donc nag jàng ci waaw man nag dama ci am jàngat yu yu xaw a yu xaw a bari waaw ba déjà metti na ma suma jeunesse su réew euh, di dem bitim réew pour euh, pour survivre metti na ma lool ndax wayoon naa fi tamit euh, muudu muudu daani na dooleem et mais gëm naa ne aussi nit ku ci nekk dafa war a am droit dem daani dooleem voyager sans pour autant mu rey boppam wala jaar ci géej gi wala ainsi de suite donc kon euh, problème bi ku nekk am na ci responsabilité rawatina suñuy njiit ndaxte suñuy njiit ñoo war a tey porter le combat ba tax soit ñu bañ a am soxla bitim réew wala buñ fa bëggee dem mu yomb nu lool waaye jafenu ba mel ne ñu nuy mbugal te deewagunu du yoon ndax tubaab bi bu bëggee ñëw day yomb lool mais pourquoi ñun bu ñu bëggee dem mu jafe donc je pense que mais les temps son révolus ah les temps se sont révolus tey Afrique am na ci gafaam li nga xam ni ku ne ci àdduna soxla na ko nanu gëm sunu bopp te bañ defa ni rek que c'est la grande puissance dañ ko war a nangul lépp lu mu joxeñ rek que ñun nous sommes le maillon faible non je ne suis pas d'accord je pense que aujourd'hui bu nu taxawee jàngat mbir mi saytu ko daañu xam ni nous faisons partie de mayo forts de cette planète kon na ñu imposer à ce qu'on réorganise la chose pour un nouveau départ et que sunu doom yi di dee ci àll bi walla di dee ci ci ci ci ci ci géej gi loolu dakk waaw loolu dakk parce que je parle en connaissance de cause bëri naa ay xameel yu yu nu dëj waaw ah, keroog avant may jóge Saint-Louis fu ne dem naa fa dugg naa fa jaale waaw ah, Pikine ña fa dem bari nañu ah te su suñu jeunesse su réew rek kay dem donc kon suñu avenir lan lay méngool ah c'est incertain waaw ah, kon maa ngi ñaax suñuy autorité yenn wi yombut lu jafe la ndax boo jiitee réew moom mënul yomb waaw jiite kër sax mënul yomb masantuma ak nga jiitee réew mais comme yéen la fi yàlla teg te ngeen sabab boobu bërëb ah, ba ñu jox leen ko góorgóorlu leen loo leen mën te loo leen teg loxo rek yàlla na ci yàlla ànd. donc Abdou ñu ngi lay féliciter di la remercier ku baax nga dañ la koy seddeel sedde woon nañ ko sànq ci njëlbeen nit la ki nga xam ne doo ko gis ci ñàkk fayda nit ku baax nit koo xam ne ku gëm boppam et euh, ci li nga xamante ne ni ci la ko yàlla ci la yàlla xiir muy woy et euh, mu ci bay waaram di def lu extraordinaire boo ko déglu li muy wax lépp téere la donc euh, ñu ngi koy remercier di ko sant di gërëm ñoom di la féttali suñu coloré ak yow di la wax ne ñun ak yow yàgg la merci infiniment waaw waaw waaw merci beaucoup ñëw ak yàgg la. Mhm. nit sa morceau bi nga xamante ne de préférence morceau boobu man sama morceau la mooy alaaji nelaw la. effectivement suñ ko dégloo euh, émotion bi ngay dégager ci kaw morceau bi. Mhm. nekk lu extraordinaire. Mm-hmm. xam ne ku ko déglu mm-hmm. te dégg li ngay wax même bu déggul li ngay wax sax mm-hmm. émotion à travers l' bi di nga xam ne lii kii li muy wax loolu effectivement effectivement donc ñu ngi lay remercier ci sa semaine di la ñaanal yàlla lépp loo bëgg yàlla na ko yàlla defal donc di di la encouragé bu baax a baax parce que yombul depuis euh, musique fu mu toll nii rawatina sax ak li nga xam ne yaa ko doon waajal grand théâtre ak covid bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen investissement bu bare bare ay million la donc ñu ngi lay masaw coono